li nga commenté nii dëgg la non seulement Barthélémy Dias bëggul Ousmane Sonko jël réew mi mais bëggul sax mu génne ci kaso bi soo dégloo tonton ji bi li mu expliqué ni Ousmane Sonko fi mu jaar ak Barthélémy Dias ak lim ko defal ba mu jël maire Dakar contrairement ak li Khalifa Sall bëggoon non li Azoura naan Ousmane ko gor la déglu. pour nag le cas de man dama jàpp ni gis nga liñ naan ku fecc colère. wala ku wor ren ba déwén. Hmm. di nga ko gis doomu ndey luy dëggu la. Mm-hmm. dañ koy jëfee duñ ko wax. Mm-hmm. différence bi nag mooy baat doomu ndey bi da koo wax rek mais Ousmane doomu bi da koo jëfee. Mm-hmm. te dama lay wax li gën a garaaw mooy li parce que yaa ko wax xam nga ñëpp xam nañ ne Khalifa Wardini la bëggoon ñu teg ko am na benn jour ñi dem Tivaouane wala Touba daal am na fu ñu doon def def def convoi di départ kër Ousmane kër président. bi ñuy génnee mu woo ma xam nga man chaque fois ci kanam laay nekk. mu woo ma tonton ji mu ne ma boo tollee siège ba na ngeen taxaw suñu siège ma taxaw siège ba oto yëpp taxaw délégation la ñu daal may cérémonie yu religieux yi lay doon. mu ne ma ana Abbas ma ne ko Abbas mu ngi nii sama oto ñu ànd mu ne ma wool ma Abbas ak Bathily ma ne Abbas kaay wuy président wàccee Bathily ñu ñëw parce que Bathily ci la bokkoon. ma ñëw président wàccee vitre oto na gàddu bi ci kanam na wàcc mu wàcc Abbas dem wii toog nii ci wetu président Bathily toog ci kanam. chauffeur bi wàcc ma dem toog place chauffeur bi kon xam nga ñun ñeent ñoo ne ci oto bi. Mm-hmm. mu ne yéen ñaar dootu leen dem ci voyage bi wàcc leen ngeen dem siège ba ngeen woo Barthélemy ngeen coordonné ngeen préparé liste commune bu ñuy def ñun ak Barth. Mm-hmm. pour déposer ko pour mairie Dakar. Mm-hmm. parce que il faut que ñu fal Barth. te gis naa ni grand bi xalifa kim ñu bëgg imposer duñ ko nangu wàcc leen pour walla ni que ni moom doomu ndey boobu daf ko jëfe am na kilifa gu ngand ku am xam-xam am lecture mos na ñëw kër président trois heures ci guddi. mu ñëw ne ko président man de lenn rek moo ma tax a jóg naa mu ne ko mu dara tax ci àddina nga bàyyi mairie Dakar. jëlal mairie Dakar bi jël ko sax yow en tant que élec président. Ziguinchor yaa ko moom seetal ku la neex nga jox ko mais jëlal Dakar. Hmm. président ne ko sama kàddu de raw na ma Dakar mu ne ah mu ne ko Barthélemy lañ koy jox te comme jaral na ma sax ma reyante ci ak xalifa hmm. ba xalifa yëgee que ni Ousmane joxe na instruction pour ñu defal liste ànd ak Barthélemy pour conquérir maire bi. Hmm. ah pour ah, hmm. ko doon jaral. te pourtant dafa am nga wor boobu nga wax du maire Dakar rek de maire Sicap Sicap Sacré-Cœur bi foofu. même chose lañ fa dal moo ñu fa dal parce foofu. dañ fa defar suñu liste neuf conseillers joxe ko pour ñu bokk ci ci waa Pastef hmm. ñu dem ba ci fin bi ba dindi ñëpp dugal fa ay nitam hmm. ci mairie boobu hmm. gars yi ñëw keroog vingt deux heures ci guddi fees dell buntu kër président waa si Cameroun di xar suuf si ne parce que liste bi dugalu leen ci te dañ koy waaj a déposé te il faut que ñu dugal leen ci ma dugal leen ci salle bi woo président mu wàcc mu ne leen lan la ñoom cernoon gars yi explique ko lépp ne sunu neuf personnes lañ joxe Bart dindi ko président woo Bart Bart ne ko non li ñu doon demandé moo ëpp ma bañ na leen mënut a nekk ñu gedd te fekk gars yi gedduñu mais xam nga comme ñun boobu ñoo jàpp ni politique dëgg la du duñ dañ naan ci àddina la yem. mais nit na cee jaamu yàlla. mais jàppoon na ni kat kii tey doomu ndey ji. du yem ci wax daf koy jëfee. Mm-hmm. ak projet yi ñu ko fas yéene woon dénk mu doxalee ko maire bi. moo taxoon ñu jox ko ko. joxe hélas.